wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallam tasliman mbokk yi seetaan seen television MK TV di télé bu mag bi nga xam ne moo nekk ci jumaay Touba euh, ñi ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci nuyoo bi ak ziar bi nag saaxibul fadilati cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul am li tarixatil muridiya di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér mbooleem njabootu mbo ak mbooleem njabootu xadimu rasul yi euh, ñu dellu siwaat nag ci seen jataay yi nga xam ne baaxoon nañ ko ànd ak yéen ci MKTV muy jataay yi xam-xam jataay leeral jataay yi waxtaan euh, bii nag di liqaat ñu koy wooye ndaje di émission boo xamante ni baaxoon nañ di ko am ci weer wu jot waaye nag ngir waajtaayu bis bu mag bi ñu jëm muy màggalu Touba 18 safar di bis bi nga xam ne ci la ñuy santale Cheikhul Khadim boroomam ci tukki bu rëy boobu nga xam ne moom la defoon te mu nekkoon njariñul euh, jaam ñëpp njariñu doomu aadama yëpp ni mu ko waxee bi mu dellusee ijaal rujuu'i ila xawmi saadatana wal takfina yawma ma xalqi niiraana ngir waajal bis bu mag boobu nag ci dëkk bu sell bii di Touba rawatina ci barab bii ñu nekk muy jumaay Touba tax na itam ñu bëgg a yaatal nag émission bi euh, dalal ci nag ay kuréel yoo xam ne dañoo baaxoo liggéey ci dëkk bi ñu rafetlu bu baax seen taxawaay seen liggéey itam fés lool euh, ci budul màggal waaye rawatina bu màggal jotee gis nañ effort yi ñuy def ci biir dëkk bi mu bokk ci kuréel yooyu nag kuréel gu ràññeeku goo xam ne fas yéene nañ koo dalal muy waa ICG waa ICG di kuréel goo xam ne ñi ngi yëngatu ci wàllu set ci wàllu euh, setal dëkk yi yu mag yi waaye nag seen taxawaay ràññeeku lool ci dëkk bu sell bii di Touba bi ñu fi tàbbee ba léegi kuréel googu nag lañ fa yéene dalal tey di ci dalal ki nga xamante ni mooy Cheikh Moustapha Gaye nekk coordinateur adjoint bu pôle centre bi nga xam ne moo boole jurubeel ak Louga Serigne Moustapha Gaye kon bala ñoo tàbb ci waxtaan rek dama koy dalal jox ko mu nuyoo ñu doog tàbbi ci waxtaan wi sëriñ Moustapha salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Ablaye ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu yaakaar ah, di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mountakha mi ngi tey mooy sëriñ Touba mu yàlla may ko fan wu gudd ak wér ah ba mu àggale naal yi nga xam ne moom la sumbal sëriñ Touba yëpp te naal yooyu yëpp mu ànd ko ak njabootu sëriñ Touba yi ak taalibe yëpp. ah ñu ngi sant euh, bu baax euh, waa daayira Muqaddamatul Xidma mm-hmm. ah di leen jotale nuyo suñu kilifa Mass Thiam mi nga xam mooy directeur UCG. Mm-hmm. ah jaarale ko aussi ci sama kilifa muy coordonnateur pôle sant muy Omar benn Soxna. Mm-hmm. may it ñu toftal ma ci moom. maa ngi leen jot aussi nuyoo sama naataango Pape Daouda Ndiaye. di wóllare waa Muqaddamatul Xidma. jamono yi mu nekk ca Ndakaaru. ñu leen gërëm bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal. jërëjëf Cheikh Moustapha ni ma ko waxee. jataay bi tey li ko waral mooy dañu seetlu seen taxawaay bu am solo bi nga xamante ni depuis ICG dugg ci dëkk bi ba léegi ràññeeku na ku romb dañ ci teg sa bët. vraiment itam résultat yi mu jur itam ñëpp xam nañ ko avant ICG di dugg Touba ak bi mu duggee Touba gis nañ différence bi wax dëgg yàlla am na ak coppeeku ku wér pour fàttali rek ne ICG mooy unité de coordination euh, de la gestion des déchets solide wala du noonu waaw loolu mooy tënkub IGG mm-hmm. muy euh, ay techniciens de surface yoo xam ne mm-hmm. li ñuy liggéey mooy fexe ba dëkk yu mag yi nekk ci Sénégal yëpp ñuy fexe ba muy set la yaakaar naa loolu mooy seen objectif tey taxawaay boobu nag doon bu am solo boo xamante ni taxaw ngeen ko ci dëkk bi mm-hmm. loolu moo waral jataayub tey ji ak rawatina bis bu mag bi ñu jëm muy màggalu Tuuba te ku ne màggal wax waajtaay wi nga xam ne waras na ko wàccal dëkk bi ci wàllu set ak waaye suñu question bu njëkk rek mooy euh, cahier de charge UGC tey boo ñu ko doon tënkal maanaam euh, sas yi nga xam ne moom lañ sas UGC boo ñu ko doon tënkal lan lay doon. waaw sëñ Abdoulaye jërëjëf UCG maanaam bu ñu ko doon tënk cahier de charge ak mission mooy maanaam état daf ko jox mooy bras technique gu état boo xam ne tey moom moo sartoo seetal réew mi yëpp yemul rek Touba lépp looy xam ne nii euh, nekk na territoire Sénégal te set war fa nga xam ne bu njëkk dañuy wax ne mbalit collectivités euh, ko doon yore waaye ginnaaw bi état dafa créé benn boo xam ne moom moo koy gérer loolu ko fenn ci benn ministère mu am nag ay dispositif fépp foo foo nekk Sénégal UCG daal mission principale mooy mbalit bañu am ci Sénégal à tous les niveaux nag waaw loolu daal mooy suñu première mission moom dëgg la dëgg la macha allah kon nga xam ne euh, euh, dëkk yu mag yi ci ngeen di nekk ci grande villes yi wala même yeneen dëkk yu ndaw yi di ngeen ci di ngeen ci dañ leen fa fekk au départ ci grandes villes yi la doon nekk mm-hmm. euh, principalement Dakar mm-hmm. ak yenn capitales régionales yi mm-hmm. waaye xam nga Touba moom ëpp na sax capitale régional dëgg la ndax bu ñu waxee ne mooy deuxième démographie du Sénégal ba pare ne dëkk boo xam ne Cheikhul Khadim fa la tëdd kooku ëpp na sax capitale du Sénégal waaw UCG bi mu jógee Ndakaaru dem ci capitale régionale yi dafa teel a ñëw Touba en 2014 déjà UCG implanté woon Touba ndax li Touba représenté ak li nga xam ne mooy ñëw ci mbooloo ci Touba ak li fi ne ci mbooloo ak Touba manifestation yi fi am ndax Touba bu fàtte ni au delà du màggal doo toog daanaka benn weer te amul xew-xew boo xam a dajale mbooloo mu bari waaw ICG aussi jël na loolu en compte mhm. kilifa ICG yi nga ba léegi ñoom ñooy succédé ci bopp kër gi mhm. ñoom toujours at jot dañ koy xalaat mhm. képp ku ñëwit yaa ngi cee bay sawaar di ko yokk ba ñu toll ci jamono yi nga xam ne ICG jóge na ci unité de coordination jëm ci société nationale tout récemment lañ ko créé ci assemblée ba président promulgué na loi bi léegi daanaka nit ñi dañoo min ICG waaye SONAGED la ñuy wax société nationale aujourd'hui waaw nga xam ne léegi société nationale la mhm. dootuñu amati coordonnateur directeur général la directeur général directeur général lépp ñu leen jot di bu baax nuyoo suñu kilifa Mass Thiam Mass Thiam waaw sëñ Mass bu baax a baax moom itam gis nañ euh, ni ko liggéey bi ñoree mhm. depuis ñu namee ko ci euh, bopp Euh, direction bi ba léegi gis nañ taxawaay yi mu ciy def notamment dëkk bi dëkk bi di Touba ak gëdd bi mu ko jox te wax nga ko léegi c'est la deuxième ville du Sénégal ci euh, wàllu population waaye tam kon am na ay taxawaay yu ci war a def rawatina ci wàllu set ak setal moo muy muy muy liggéey bu am solo mm. waaye bëggoon nañ xam itam fonctionnement bi maanaam ICG mm. ba fonctionnement bi nu muy fonctionner ICG ni muy fonctionner mooy xaalis su état lay fonctionner mm. muy impôt sénégalais yi nga xam dañ koy prélever état di jox ko benn structure muy muy ICG mu ci mu ci mu ci doxal ca booba dafa am da ngay jël ñetti commune d' arrondissement def ko ay coordination am na ko moo jiite coordination régionale de Dakar ci biir région yi nag mu am beneen ko tabaxee am pôle boo région mooy dañ ko jël koy pôle région de Thiès pôle de Thiès la région Diourbel Louga na dañ ko boole muy benn pôle normalement tey ji bul woon jëm ji ni Touba représenté bureau yi Diourbel la waroon nekk waaye Touba moo mënul xajook leen kenn mm-hmm. ñu indi bureau yi ko biir Touba mm-hmm. am na pôle bu région bu nekk dafa nekk pôle. Mhm. nga xam ne tey ñun ñoo yore Touba. Mhm. waaye ñoo yore Linguère. Daara Jolof mhm. Kébémer Daaru Muxti Ndàngalma Bambey bépp dëkk bu nekk ci ñaari région yi ñun suñu bureau bi ñu ñoo fee intervenir te it dëkk yooyu yëpp am nañ fa dispositif ñu ñu fa représenté am agent yoo xam ne saa yu xëyee ni nit ñi def tubaa yi loolu lañ fay def macha allah te loolu yi depuis l'avènement de Mass Thiam la gën a yokk ndax euh, bi ñu créé daaw bi président defee xëyu ndaw yi daf ñoo daf ñoo toftal fukki junni nit fukki yoo xam ne dañoo may droit leen fukki junni nit yooyu mënoon nañ ko tas ci réew mi dëkk bu ne am ca kotaam mm-hmm. moo tax UCCL ak lawam gën a yaatu léegi mm-hmm. foo dem ci Sénégal léegi UCG ñu ngi fay xëy di ba di di bale kii. Ah, te loolu ci moo tax existence bi gën a nekk lu remarquable waaw mu gën a fees. Mm-hmm. dëkk boo dem léegi am na dispositif UCG am na oto yu fay daw. day mel ne daal Ndakaar moom ndax daal li ñu bëggoon mooy euh, li xew Ndakaar di di ñëw Touba. ndax man Dakar laa nekkoon def naa fa dix ans. bi may ñëw fii itam. foog ku ñu fonk dëkk bi. Touba rek mooy dëkk bi ci am ñaari adjoint Touba ndax Touba liggéey bi bari na xew-xew yi bari na te euh, fonk wuñ ko fonk te ji man am naa sama benn naataango ba xam ne adjoint Kaolack amu fa amul Ziguinchor amul benn capital régional ñun ñaari adjoint la xam ne saa yu ñu xëyee ci luy doxal Touba rek ci la ñu mhm. dëgg la nga xam ne daal kon depuis depuis 2014 mën nañ wax ne le IGG existé fii ci Touba la dugg ci biir dëkk bi di tuubaa mhm. waaye itam bi mu fi duggee gis nañ wax dëgg yàlla ni ma ko waxee ci ci bi mhm. ak coppeeku gu am solo xam ne am na ko par rapport ak euh, laataa muy ñëw ci dëkk bi ci wàllu euh, euh, seen agent yooyu nga tey bu ñu doon xool lim bi nu mu toll mën wax ñaata lañ agent yu nekk Touba di liggéey nii jamono yi mhm. boo leen xaymaa fi ne daanaka mën nañ ay trois cent cinquante trois cent cinquante waaw ci biir Touba ñetti téeméer ak juróom fukk te trois cent cinquante yooyu diggante daaw ak yokk nañ ci téeméer mhm. ndax daaw ci tolluwuñu noonu mhm. waaye daaw ren am téeméer yu ñu ci yokk yoo xam ne dañoo ñëw dolli ko ci loolu nga xam ne biir Touba la sax mhm. duñ génn Touba Touba la ñuy xëy di liggéey oto yi di tonni mbalit am ne dañ ko teg ci mbedd mi nga xam ne pour a tur euh, mbalit ci suuf bac à ordures waaye am na kees polyvalent nga xam ne day mel ne ah, mhm. oto dina ma daaw tolloon nañ ci juróom-ñeent waaye diggante daaw ren yokk nañ ci juróom benn muy fukk ak juróom léegi fukki ak juróomi oto yoo xam ne ñu ngi nekk biir ñu teg leen biir place am ñaari chauffeur yoo xam ne saa yi ñu xëyee caisse hmm. yu fees la wër di ko dem di tuuri di ñëwaat waaw nga xam ne ñaari chauffeur yi loolu rek mooy seen liggéey hmm. kenn ku ne daan doonte daan juróom benn wala juróom ñaari caisse hmm. saa yu yow di fekk mu fees nga dem tuuri ko ci décharge ba ñëwaat mooy caisse yu weex yu mag yooyu yu mag yooyu yi ñuy teg ci ci en général ci quartier voilà très yooyu tey waaw ci mbalit nga xam ne kon boo ko waree da ngay jàpp ne Touba am na trente véhicules yu fi daw waaw oto yi moom mën nañ fukk ak juróom waaye kees yi moom dañ leen samp ci ay pla ay yoo xam ne mhm. dañuy dañ fa tàmb di fa tur mbalit muy am ay dépôt léegi nag pour éviter mhm. gi saa yu feesee am na chauffeur bu ñëw jël ko dem tuuri teg fa geneen gu vide mhm. waaw nga xam ne en permanence foofu moom dañ ko jël en compte waaw te ñu ngi envisager d'ici déwén wala balay màggal gi sax yokkaat dispositif na Touba ba léegi mhm. ni mu toll ci dayoo ci ci population ak surface ni mhm. ñu ko mën a jëlee en dëgg am destin waaye ñi ngi def ay jéego yoo xam ne suñu objectif mooy egg ci 30 oto yoo xam ne nii bokkut ak kees yi nekk sur place. waaw wax nga ko léegi ci wàllu équipement bi am ngeen ay camion am ngeen ay kees yu mag ay bac à ordures ndax loolu doy na nekk na ay euh, équipement boo xamante ni doy na ci dëkk bi wala yéen a ngi envisagé yeneen équipement yoo xam ne kii ak it quartier périphérique yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi parce que Touba léegi doonatul ab dëkk am réew la. quartier yooyu lu ngeen di def ak ñoom ci wàllu mbalit mi parce que Touba xam nañ ne rëy na waaye tali yi barewul noonu pour nettoyer quartier yooyu da ngeen di obligé yabal fi ay camion wala nu nu nu muy nu muy demee waaw dëgg la xam nga loolu foofu sax li dama li ma am lu ma fàtte woon ci disposition ndax en dehors de oto yi ak kees yi mhm. Mhm. am nañ ñetti camion 16 mètres cube ak benn pelle mécanique boo xam ne lii rôlam mooy li wër ay sën di ko jël fi ne quartier am na quartier yoo xam ne oto mënu faa dugg uh-huh. waaye dafa am association yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ne aussi uh-huh. ñoom dañoo am ay uh-huh. ci ay bayaal saa yu baree ñun ñu ñëw tonni am na yoo xam ne ñu ngi daaru minam am ñu nekk Madiana am ñu nekk jannatu am ñu nekk Guédé nga xam ay association ne ci yoo xam ne ñoom dañoo am seeni saret dugg ci biir kër yi fu oto mënul egg ñu fa jëli mbalit di ko yóbbu ci benn bayaal bu yaatu saa yu feesee duñ toog une semaine boo xam ne demuñu fa yendu fa ak suñuy camion suñu pelle mécanique tonni ko boo te loolu aussi dafay résorber mm, déficit bi Touba nag dëkk la boo xam ne neexul a planifié ci dara muy courant muy dara ndax dëkk bi ni muy màggee moo doy waar waaye ñun luñ def ren ni rek mm. bu déwénee dinañ ci yokk loo xam ne dinañ xam ne aussi dëkk bi mu ànd ak euh, màggaayu waaw dëgg la macha allah léegi nag mm, mën nañ wax ne nag setal dëkk bi mbir mu kii la daal lu lu am solo la lu lu kii la parce que xëy na Touba bedd yi yaatu na mel noonu waaye période hivernage bii muy jamonoy nawet bii bale dëkk bi xam na gis nañ dëkk bi ak taataay nu mu bare loolu foofu moom lu ngeen di def ak moom lu ngeen di def ak moom nawet bi waaw loolu moom day jafe-jafe jay day gën a tar ndax euh, ndox mi ak ak taataay moom du yomba liggéey bi waaye xam nga comme ñun dañuy liggéey nawet ak noor mm-hmm. balee nawet bi ñëw sax dañuy am pour opération pré hivernale mm-hmm. dañuy am un mois avant avant nawet bi mm-hmm. dañuy wër sën yi nekk ci Touba yëpp am camion yu koy wër nga xam ne lépp lu fa nekk ci sën camion bi dina ko jël jafe-jafe bi ñuy am rek mooy yenn mbedd yi nga xam ne day taa te oto daan fa mën a jaar accès bi day xaw a waaw mm-hmm. nga xam ne toujours dañuy wiiri mm-hmm. wala ñu fexe ba wut ay pexe yoo xam ne mm-hmm. nawet moom du ñu yombal yëf yi wax dëgg yàlla même balayage bi sax nii gis nga ah. soo balee tel bi ba set mu leer nañ bu tawee bu subaa ba ñëwaatee fekk suuf si nekkaat waaye ñun tamit noonu lañ koy defee comme ni koy defee Ndakaaru ak yoonu yaatu bi nga xam ne mu jëm Mbàkke nga xam ne daanaka mooy voie principale Touba ñun duñ ko bàyyi bokk hmm. fi ne jumaa ji ne am na fi équipe boo xam ne quatre heures demi lañ fiy ah, moom dinaa ci ñëw moom boobu <laughs> allah mais am na nag benn question boo xamante ni yóbbante nañ ma ko muy laaj boo xam ne xam naa ne dañ sàkku nga leeral ko hmm. ndax am na ku ne ma daal laajal ma leen ndax ñoom euh, seen quantum horaire ak seen planification lu muy demee ndax chaque heure day gis ay nit ci kaw tëri bi suba gi digg bëccëg ngoon gi ndax même équipe bi ñooy kii wala dafa am ay équipe yuy relevante nu mu demee noonu daal euh, jërëjëf sëñ Abdoulaye xam nga ICG nag euh, société la boo xam ne aussi dafay am conformité ak législation du travail ndax législation du travail li mu mooy 40 heures par semaine mhm. ñun tey jii suñu agent yi li ñuy liggéey sama tul lool mhm. ndax ñi ci suba 8 heures la ñuy xëy tisbaar ñu wàcc ñiy gont wàcc 4 heures jiwantu 4 heures wàcc 21 heures mm. nga xam ne boo calculé 8 heures ba tisbaar daanaka juróom-benn waxtu la ah, waaye tàngaay bi ak naaju tàngaay bi moo tax ñu wàññi ko mm-hmm. ñi ngi envisagé sax guddi gi ut guddi boo xam ne day fekk ker gi sedd oto yi wàññeeku nga xam ne ñun doo ngay nekk ci mbedd mi defal ko équipe ngoon bi ban heure la ñuy wàcc parce que léeg-léeg dama leen di gis ñu xaw a guddee fii de léeg day fekk am xew-xew fii nekk waaw ndax fii tamit comme mooy xolu dëkk bi léeg-léeg kilifa yi nekk ci kër Sëñ gi hmm. am manifestation fi am ñun tam du ñu nangoo bàyyi mukk guddi gi nit ñi di xëy gis mbedd mi di am nu mu mel ci li wër jumaa loolu mooy waral toujours parfois a macha allah dégg la euh, léegi ci wàllu mbalit mi nag. parce que ordure la ñuy wax waaye gars yi ne nañ léegi or diir la. maanaam wurus bu gànjaro la daal or diir la nekkatul kii. léegi décharge yi nga xamante ni fa la ñuy tuuri ji mbalit mi. ndax yooyu itam yan décharge la ak yan matukaay lañ fa lañ lañ fa jël. ak ndax it yéen a ngi xalaat ci transformation wu mbalit mi jéem koo wëlbati euh, ba mu ba mu nekk ni ko tuddee ordure. waaw waaw ah, loolu moom dëgg la parce que ICG depuis 2017. nga commencé tabax ay infrastructure ci dëkk bi yoo xam ne am na ci boo xam ne nii bi nga xam ne mooy bi ci gën a mooy boo nekk côté Kaddu Ballo ji boo génnee nit ñi boobu domaine boo xam ne nii mën na 80 hectares mm. def nañ fa infrastructure yoo xam ne nii dañuy bëgg mbalit mi bis bu jëlee boobaa oto yi duñ mën a jël xam nga am ñu yu ci dëkk bi yoo xam ne saret mm. yi bu ñu jëlee mbalit mi dañuy dem di ko fa yóbbu mm. bu ñu ko fa yóbboo ñu tànn ko seet li carton ñu mën koo jariñoo ñu am na fa ay matuwaay yu jël yoo xam ne barab yooyu tabax juróom-ñett ci dëkk bi mm. am na bu nekk Lansar mm. am na bu nekk Ndindi am na bu nekk Tindoodi am na bu nekk Aliya am na bu nekk Buxatul Mubarak am na bu nekk Daaru Mandaan hmm. boo demee ay kër yu mag la yoo xam ne daanaka ëpp na 1000 mètres carrés hmm. boo demee saret bu ko hmm. xam ne dañ ko tànnaat tànn bu mujj boo xam ne lañ cay ñu ko jar rek dem di jël di tuuri te loolu bu soobee yàlla su kilifa yi taxaw nañ ci hmm. ba balaa yàgg incha allah dinañ ko mën a terminer incha allah hmm. waaw loolu parce que loolu day lu am solo ndax euh, boo xoolee lu mel ne ci wàllu mbalit ba ci ndox mi nga xam ne mooy taa ci dëkk bi hmm. yu ci nekk war nañu mën a jël ay xalaat ci di ko jéem a jariñoo ci beneen anam lu dul bàyyi ko noonu rek euh, sa euh, sànni ko noonu rek waaw léegi nag ñu ñëw ci nag bis bu mag bi ñu dëgmal nag muy màggal Touba gis nañ taxawaay yi nga xam ne daan ngeen ko ci def ci màggal gi at année yi weesu yëpp muy taxawaay yoo xam ne yu ñëpp teg seen bët la ndax dëkk boo xam ne lu mat 4 millions de personnes suñ ko doon xayma rek war na ko ëpp ñoo xam ne ñoo fiy daje ku nekk dana yor benn objet boo xam ne bu paree dina ko sànni moo xam ab ab sachet ndox la mhm. moo xam ab crème bu mu jëndoon doon ko màcc la moo xam benn kaas euh, AGT la mhm. bu mu yoroon léegi xam nga ne loolu foofa la fay des ci mbalit mhm. euh, dana bari parce que yaakaar naa am na xayma bu ngeen ci defoon daaw ci ñaata tonnage lañ fi lañ lañ fi génne waaye bala ma ñëw ci loolu sax mooy màggal Touba léegi dafa am ci biir comité bi benn commission bu ñuy wax commission assainissement. boo xamante ni chaque màggal buy waaj a ñëw dana woote benn opération mbalay dëkk bi. ànd ko ak suñu mbokki Baye Fall ak Murid yëpp. léegi foofu itam lan moo fiy taxawaayu UCG ndax da leen di accompagner wala yan taxawaay lay def dafa mel ne ñoom dañuy ñëw ci seen mission. Mhm. di ci liggéey di leen mel ni ñu leen di ñu leen di jàppale. ñu jàppale waaw dëgg la xam commission assainissement ba sax ñun dañoo dem ba nekk ci biir. waaw fi ne ñoom dañuy par réunion bu ñu def ak sëriñ si Abdou Latif dañ fay dem di ca di ko fekke mm-hmm. di xam la nas di ko ànd ak ñoom bisu bis ngi commencé mbali itam mm-hmm. dañuy am matériel lourd boo xam ne UCG da koy mettre à la disposition mm-hmm. dañu xam ne ñoo koy yor ñoom yorul ko seen bopp jébbal ko ñu yoree liggéey bi ñuy ànd ak ñoom ci dëkk bi di tourner fukki fan yooyu avant màggal gi bu ñu paree itam ñun dañuy am dispositif boo xam ne dañu koy renforcer ci biir dëkk bi UCG dina def benn recrutement spécial boo xam ne daanaka lu ma téeméeri nit lay doon ne bu ñëwee dooleel ñu nga xam ne recrutement pour un mois lay doon fukki fan avant màggal mm. ba vingt ak vingt jours après màggal nga xam ne day ñëw uniquement pour màggal gi mm-hmm. ñu def ñun dañuy teewe amul lu ñu def loo xam ne ñun duñ ko fekk duñ ko allah kon léegi plan plan d'action ngeen teg ci màggalu ren plan d'action bi ñu teg mooy mm-hmm. euh, veillu màggal bi mm-hmm. suñu petit matériel bi dina ñëw balai râteau pelle brouette ak lépp loo xam ne jumtukaay la boo xam dina mën a seetal dëkk bi mhm. danañ ci indi quantité mhm. ñëw teg ko ci indi ko teg indi ko ci buntu ko résidence bi mhm. matériel lourd bi tam dina faransi foofu bu ñu xëyee kilifa yi dinañ ñëw dajeeg sëñ Cheikh Abdou Latif ak sëñ sëñ Basirou ñoom ñi nga xam ne ñu yor comité d'organisation bi ñu lancé travaux yi bu ko defee ñoom tam ñun am nañ suñu oto yoo xam ne dañuy jógee Dakar ñëw renforcer suñu parc bi fi nekk pour jël mbalit mi oto yoo xam ne ñun li ñu yor dañu xam ne doyul suñu chauffeurs yi dañ leen di renforcer am chauffeurs yoo xam ne dañ leen affecté uniquement Touba ci biir màggal gi mhm. comme ni police yi defee détachement mhm. spécial am ak gendarmerie et cetera mhm. ñun tam suñu agent yi nga xam ne dañu kenn région yëpp dañu ñëw en renfort à Touba ñëw accompagner ñu ba màggal gi jeex waaw loolu moom dispositif boobu moom jël nañ ko te fan yëpp ñu ngi ciy xëy di ci réunir suñu kilifa nga xam ne tey ji moom mooy jiite pôle bi moment yi mi ngi Dakar di réunir ak suñu kilifa Mass Thiam te màggal gi rek moo tax mu xëy dem ngir da ci dajak moom macha allah gis na itam taxawaay bu am solo bi nga xam ne mu ngeen def ci grand grande mosquée de Touba moom da ngeen ko da ngeen ko beral loxo daal waa UGC dañ ko beral loxo parce que gis nañ màggal gu jot dispositif yi ngeen fii déployé gis nañ tam même bu dul màggal léegi chaque heure boo fi jaaree da nga gis ñuy nettoyé wax dëgg yàlla tali boole mboolem daan jàmbat fii ci li wër jumaa ji parce que Moukhaddamatoul Khidma dafay gérer jumaa ji ak li wër waaye li ko wër amul woon suffisamment ay membres yoo xam ne dañuy wër di nettoyé donc léeg-léegi ay alxamis ci guddi la ay bonne volonté ñëw di ko nettoyé waaye depuis UCG ñëw gis nañ wax dëgg yàlla liggéey bu am solo bi nga ne moom lañ fi def léegi gis nañ bac à ordures yi ngeen di yi ngeen def fii nga xam ne après màggal jumaa ji li muy recevoir ci ay ay fidèles ay ñuy ziare jul li muy bari bari après màggal dañuy gis ni ni ñu gaaw évacuer mbalit ni foofu itam ñu ngi leen fii waaye ren mbaa yéen ngi xalaat jéem koo renforcer bu baax loolu moom ciy renforcer ba sama sama naataango bi nga xam mooy mobilier urbain mooy ñi yore wàllu bag yi mhm. euh, formation mhm. waxtaanaat nañ ci moom itam nga jël ay matuwaayam ba nga xam ne nii lépp loo xam ne day bag la boo xam ne dafa ñëwaat jumaa ji mhm. sooba yàlla dina teel a ñëw ñu waxtaan ceeg waa daayira bi seet na ñu koy mettre mise en place parce que yéen boo xam ne comme fii day xat day taxaw en permanence nga xam ne bac yi saa yu feesee mhm. dañ ko mën a dem tuuri ñëwaat nga xam ne du am dara luy taxaw de toutes les façons lépp lu ñu defoon daaw mhm. danañ ci yokkaat ren loo xam ne mhm. danañ xam ne dëkk bi moom lépp lépp day màgg waaw incha allah macha allah xam naa li ñu desee ci waxtu bëreetul lu ay juróomi simili lay doon euh, euh, màggal gi itam am na beneen phénomène boo xamante ne xawma nu ngeen di def ak moom itam mooy xam nañ ne fi li ñu fi lottal ci ak jur mhm. lu mel ne ay nag ay xar ay giléem mhm. te après sama classe gi dañ koy bàyyi ci mbedd mi dañ ci mbedd yi lañ koy rey en général dégg nga dañ ko ci bàyyi dem mhm. léegi foofu waa UGC yan matukaay lañ ci jël waa matukaay yi ci jël nag di moom xanaa di ko di ko collecté rek waaw di ko collecté rek collecté rek waaw mais li doon xalaat mooy loolu ku mel ni privé yi war nañ cee xalaat ndax euh, créneau la boo xam ne buñ ci investir woon li fi rey ak jur ak der bu ñu ko jógoon tëjee mën nañ am tànnari bu mag ci biir Touba boo xam ne day jëloo en compte nit ñi di ci liggéey mu delluwaat ci biir dëkk waaye ñun dinañ fas yéene ba lépp loo xam tëjee bu yàggee ci dëkk bi ak nawet bi mën naa jur yeneen jàngoro mhm. bu soobee yàlla bu ñu fukki fan après mhm. Touba dina amaat xar kanam goo xam day mel ne mhm. bu ñu ngi ñi ci wàccaay màggal ñun loolu mooy suñu credo toutes les façons dañuy pendant ak après. macha loolu mooy suñu mooy suñu waxin. Mhm. avant mhm. nu dëkk bi bu nit ñi ñëw dañ fekk mu am nu mu mel. Mhm. ci biir màggal gi tam duñu duñu taxaw ba bis màggal gi la ñuy xëy noppaliku. waaye dès le lendemain dañuy commencé waat jël suñu dispositif bu ko defee Touba am amaat amaat beneen beneen beneen visage. macha ndax liggéey bi yéen a ngi ciy ay difficultés yoo xam ne xëy na dana jar ngeen sensibiliser ci nit ñi. waaw dinañ ci jànkoonteeg ay difficulté na ndax Touba dafa am bari mbalit itam dafa xaw a particulier ah, mbalit bi day diis dañuy lay kër yi mhm. ay xeer dañuy jël loo xam ne bokku ci mhm. di ko ci boole ndax ay bu doon mbalit kese kese ndax tali mbalit li objectif bi mooy di ko wàññi waaw waaye tey jii da nga gis koo xam ne saako bi mu indi yow mi koy jënd ko teg ci oto bi doo ko attan doo ko attan doo ko attan te boo seetoon ci biir la ci doon mbalit lu ndaw lay doon non barki ngi jógee Mbàkke jiit léeg sama kanam benn camion UGC mhm. ñoo jiit la man moom ci circulation bi mais bi mu tollee marché Daaru Manaan maa ngi gis femmes yi nekk foofu yëpp génn di sotti ci kaw ci kaw ci kaw camion bi mais am na ci koo xam ne li mu doon ki moom non seulement moom attanu ko même même même euh, agent yi ma gis ci ci ci camion bi sax pour ñu yëkkati ko problème la loolu tam loolu tam problème moom bu ñu ci doon bàyyil xel di fexe ba mbalit bi di ko ber yéen ñi nga xam ne tam bu deen xeere yooyu sax am nañ peel bu koy jël wala benn dispositif waaye dafa dem ci oto mbalit ah. bi a jafe mooy oto bi ñaari point lay taxaw fees dem tuuri ñëwaat te loolu li koy waral mooy mbalit mu diis mi rek bi tam yenn saa yi nga gis jigéen ñi nga xam ne dañu yore mbalit mi mm. du ñu am compréhension ci ak suñu agent yi mm-hmm. ñu dellu xam ne ñun ñoom ñoom la ñuy liggéeyal dëkk bi am na engagement citoyen citoyen bu fi nekk boo xam ne daanaka amul fenn mm-hmm. ndax waa dëkk bi dëkk bi ñor na leen mm-hmm. dëkk bi Serigne Touba la nit ñaa ngi takk seen digg di ko liggéey ñoom tam ñu xam ne dañoo ñëw pour dooleel leen képp ku ñu gis agent agent UCG bu liggéey ñu xam ne dañu ñëw pour defar defar Touba ci seen service lañ nag ñu gën ñu comprendre xam ne seeni soldaar lañ ndax tabaski koor korité ñun ñu ngi ci naaj bi di liggéey amuñu benn heure de repos boo xam ne ni tey dinañ ko am lu mel ne daayira yi wala association yi nga xam ne dañuy seet setal ndax tey ku ci doon seet setal nii sa quartier wut jour boo xamante da nga seet setal ndax mun na contacter UGG wala wala dangeen leen fay tegal dispositif boo xam ne buñ paree la ñuy duul mën ko faa def contacter leen ñu ñëw jël jël jël kii bi kees gi loolu moom ci suñu quotidien la bokk waaw saa yoo ñëwee bureau bi da nga fa gis koo xam ne day jóge ci daayira mhm. du biir Touba sax waaye dëkk yi wër Touba mhm. Mhm. tindoo di mais dëkk yoo xam ne ci tubaa lañ bokk ndax ci digalu Serigne Touba lañ leen sañce te ay kilifa yi yu dëkk ci Touba ñoo ko sañc nga xam ne da ngay ñëw wax ñu ne da am bi sàngam ñun li ñuy sàkku rek mooy képp koo xam ne bëgg ngaa def dara nga teel ñoo avertir ñu jël kees tegal la boo da pare yenn saa yi sax dañuy ñëw accompagner la indi suñuy nit ànd ak yow defar ko ba mu ba mu sotti mm-hmm. boo paree itam jëlaat suñu kees yóbbu mm-hmm. loolu moom ndax loolu dafay dimbali suñu liggéey mm-hmm. ndax nango gi nit ñi nango liggéey sonn ci dëkk bi loolu aussi lu yombal liggéey bi ndax day dañuy fekk loo xam ñun ñoo ko doon def dem benn dëkk bu mel na Baxdaad dañuy xëy jàpp ne ñoom dañu war def seen journée set setal dinaa fa yóbbul waa dëkk ba yóbbu fa ay oto buñu paree ñu jël yóbbu te ji màggal daaru Karim màggal daaru Muxti dëkk yooyu yëpp bu amee quartier yi képp koo xam ne xew la nga te ngay association mbooloo mu organisé wu boo ñëwee contacté ñu wax ñu bis ba nga xam ne da ngaa bëgg a seet seetal dañ la accompagner mm. ba pare la fa nekk ci yëpp mari dañ ko macha allah macha allah jërëjëf Cheikh Moustapha dafa mel ne waxtu wi jeex na li ñu amoon ci waxtu jeex na doyaluñ nag waaye xam naa dinañ jël si waat ci ci ci biir màggal gi nag ak liggéey bi ni ni ñu koy taxawale bu ñu amee occasion defaat ba yeneen i jotaay mhm. ngir sensibiliser nit ñi nag ci wàllu seet mhm. kon xam naa dañu jox la kàddu gi rek nga nga nga tàggatoo yi ah, di sant rek ndax man li may delloo sant mooy di doomi dëkk bi di liggéey ci UCG ba yàlla dogal ñu affecté ma fii ma war a ñëw di participer ci dëkk bi mhm. loolu may sant yàlla di ko sant Cheikhul Khadim ah, di ñaanal nag sama na fukk ndax fi ne ñun li daw di jëm nekkoon ci wut di wut si liggéey mosul am fenn bis bu set nit ñaa ngi yor seen i dossier kenn ku di bëgg liggéey te liggéey bu doon xeeb bu njëkk te bu daanaka kenn mu ci kenn ko te bis bu set nangam yoo kenn ku ne yor sa këy bëgg a liggéey te loolu maas caama ko waral tey ji delloo nañu suñu fierté mm-hmm. gën nañoo dooleel mm-hmm. te am dal nañ xel mm-hmm. moo loolu moo waral aussi bi ñu changé ICG def ko def ko société tam moom la ñu confirmé ci bopp société tam di ko ñaanal daal yàlla may ko ay jumtuwaay te dëkk ko ñor bi lu ko ñor la waaw maa ngi gërëm waa daari Moukhaddamatoul Khidma di nuyu kilifa yëpp waaw di sant nag li ngeen ñu defal nii yëpp ndax tey première émission bi ngeen jagleen ñu ko loolu wan wan ngeen ñu fi ñu leen egg di ñaan yàlla collaboration wéy te fas nañ ci yéen a bay suñu waar ba suba soobee yàlla incha allah mi nga xamante ni mooy euh, coordonnateur adjoint bu pôle centre bu UCG bu bi boole Louga ak Diourbel mu ñu dalaloon ko tey fii ci seen émission liqaat ndaje ngir waajtaay yi nga xamante ni moom la ñuy waajalee màggalu Touba ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi euh, mu fës lool lool ba ñëpp di ci teg seen bët euh, ñi leen ciy jaajëfal di leen ci encouragé di euh, jaajëfal seen kilifa Serigne Mass Thiam hmm. di ñaan yen bi yàlla na woyof ci moom société bi yàlla na ko àggale foo xam ne hmm. kenn xalaatu ko woon mu am ci ay ndam yu rëy rëy yéen itam yéen ñi nga xamante ni yéen nekk di liggéey liggéey ci dëkk bu sell bi suñu borom dafa leen ndam yu kawe ndax wane ngeen ci Pastef wane ngeen ci yéene itam wane ngeen ne itam ay taalibe ngeen yoo xam ne dañ leen indi ci dëkk bi euh, delloo si leen seen seen seen dëkk loolu wane ngeen ko bu baax a baax kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokki téléspectateurs yi doon topp MKTV ci seen émission liqaat di leen jox dig daje ci yeneen i jataay fii ak màggal ñuy àgg ci 18 safar incha allah yàlla na ci yàlla yeggale ak jàmm euh, ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي